alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi dama jàngee ci moom taalibe nan lay mel ak lan mooy jikko taalibe cheikh abdou barhama jàmbaaru cheikh ibrahima ñas waaye nit ku dégg lu nekk la waaye dëgg-dëgg sooy seede ku bëgg Cheikh Ibrahim taalibe Cheikh Ibrahim mun nga ko joxoñ moom taalibe baay xàqan la boo xam ne amul sikk sàkk parce que lii wane loolu ne moom taalibe baay la yàlla dafay may nit ki daraja te daraja jooju soo moytuwul defoo nànk seytaane daf lay jay te su la seytaane jayee rek daf lay mën ndax aarifu billaahi bi seytaane daf koy feeñu naan ko yow la nga yaakaar ni lépp nag yow la fekk bàyyi moom bàyyi la rek waaye ku topp ci bàyyi bëgg bàyyi rek dangay nekk di bàyyi Cheikh Abdou Wilane kenn amul sikk sàkk na yàlla may na ko daraja joo xam ne su ko neexoon mu mel nu ne waaye man de ba may xàmmee ba léegi musuma koo gis ci biir Médina ak tànkam musuma ko gis ci biir Médina nit di ko topp te doo ko gisantu sax ci biir Médina ndax rus na sax dox ci suuf soo xam ni Médina la nekk di nooyi sëñ bi wallahi su fekkoon ne dañuy maye rein nga soxla ko waat naa ko ci Cheikh Ibrahim Niass ma jox la ko waxuma ko pour neexal la waxuma la ko pour jay la joxoo million joxoo ma milliard joxoo ma dara waaye jox nga ma Cheikh Ibrahim te Cheikh Ibrahim laa bëgg sama xol lépp lu ma am bàyyi laa koy tiitaroo moo tax foo nekk la tiitaroo xamal ne maay sa avocat xamal ne maay malaaka bay nekk yowmal qiyaama di xëcc nit ñi man maay sa malaaka Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey fay baay bi ci barxama